وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور Touba Bogo di dëkkub Cheikh Mouhamed Fadal Mbacke ibnu Xaadim Rasoul fii la Serigne Fallou Mbacke daan bayee tool yi nga xam ni li fi daan bàyyeekoo daka daan def ci liggéeyub jumaay Touba ju mag ci muy suuf su barkeel. tey sant si Abdou Karim Sëriñ Fallou mi na moo moo indi fii ci toolu Sëriñ Fallou yii di Touba Bogo ñëw gën fi ñëw dañ fi dañ fi sant si Abdou Karim Sëriñ Fallou ndax barab bi sëriñ bi moo def njëkk indi fii mooy Touba Bogo ñun Touba Bogo dañ ka daan dégg rek. dañ ko daan dégg si rajo yeeg télé yi. waaye suñ fi tegee suñu tànk rek jëm si Abdou Karim Sëriñ Fallou moo dañu teg suñu tànk sëriñ bi nag. ah dafa ñëw ngir yeesalaat liggéey bi ndax am na daara yu mu fi tabax daara yaa ngi fee def nañ fi ay nawet ay nawet yoo xam ne fi lañ ko defee fii ci àll bi te sëriñ bi jublu ci barab boo xam ne da ci tàggat dongo yi di ci liggéeyal di ci di ci liggéeyal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul kon daal barab la boo xam ne si li fi sëñ bi di def sëñ Fallou moo ko tàmbali sëñ bi nekk ci loolu naka sëñ Fallou daan defee rek sëñ bi noonu la ko wóyalee. sëriñ Abdou Karim Mbacké moom Cheikh Mouhamad Fadal liggéey ak jàmm yàlla rek ci la nekk ak xettali jaam yi fii ci Touba Bogo am na fi ay tool yoo xam ni yu yaatu la tool yoo xam ni sëriñ bi mi ngi fi tàmbalee bay ci atum 2013. mooy li ma la sànq ne sëñ bi tabax na fi ay daara ban fi ñëw ci bu njëkk ab àll bu la woon ñu gor garab yi. daal koy barrière utal ko benn bunt si tàmbali sëñ bi ay néegu ñax la fi defoon dem ba ci biir mu def fi ay bâtiment bâtiment yi daara yi maanaam daara yi fi nekk ñaari daara yi daara bu ci nekk am na am na si am na juróom benn néeg néeg yooyu ci la dongoy tarbiya yi nekk muy bàyyi faal yi nga gis si liggéey bi nii dong yi féete ñoo ñoo nekk ci néeg yooyu comme ni ko waxee muy barab bi nga xamane si ñëwoon nga fi fekk mu doon ab ab got tey sëriñ bi def ko nii maanaam tey ji ku fi ñoo xam ni nam meloon bu njëkk ak tey ji wuute woon na ngir gën a yombal nekkin wi ci tool yi sëriñ Abdou Karim Mbacké borom makaarimal axlaax def na fi ñaari forage indi fi ranran bi nga xam ni ca bogo rek la yemoon mu xëcc ko ba mu agsi ci biir tool yi indi fi it courant bi sëñ bi moo ko fi indi am na forage bi ñu fi njëkkoon def mu ngi ne la ca kaw bii mooy ñaareelu forage bi forage bi njëkk dafa amagul satadoo waaye satadoo waaye forage ma nga fa bu mujj bi moo am satadoo ba moo nekk nii ñuy seen raaraa bi ca dëkk wa Touba boo ko la yemoon sëñ bi moo ko xëcc mu agsi fii ci tool yi moo ko indi fii ci tool yi mhm. waaw waaw bi noonu lépp ci mbaaxam la fi ñëwee ci mbaaxu sëriñ bi la fi ñëwee mhm. waaw ñu toll ci wàccaayu nawet atum toll ci ruuj sëriñ Abdou Karim Mbacke woolu woon taalibe yi ci liggéeyub tool yi ñu woote woon ko samedi dëpp woon ak le 6 mai 2023 taalibe yi bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ñëw wuy si ci liggéeyub sëriñ Abdou Karim bii. waaw ci woote bi euh, sëñ bi mi ngi woote ci samedi nañu ñu ñëw waaye ñu yàlla dogale ñu àjjuma leen fanaan si ndax ñoo fi jiitu woon doon defar dal yeeg yooyu ci àjjuma ji waaye samedi bi si la mboole mépp daal di ñëw ñu tàmbali liggéey bi dimanche ba tey ji la lan bés àllarba wala. Uh-huh. ba mu ngoog. noonu la noonu noonu la demee. liggéey bi nag taalibe yi def nañu ko ak Pastef te lépp dañu ko nos lu ci nekk ak ña koy def ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ ci war a àndal. yaa لم تكني ناديتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقول لي كن فيكون هادي منك بلا ولا تهادي من لم يعبدا وجيل من قد آمنوا وأسلموا am ñu farewoo ci wàllum séddale ndox mi di ndox mu sedd ci mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci biir tool bi di liggéey nga xam ne manqué wul benn yoon am na ci it ñoo xam ne ñoo doon saytu sellaayut liggéey bi noonee la amee woon ñu fare ci waañ wi di waajal mbooleem xéewal yi nga xamante ni moom lañuy jox mbokki taalibe yi muy ndékki añ ba ci reer قل لذوي الإيمان وبيل من جهد للمنتقى ولا لوساب الكرام loolu la am ci jëfe ndigalub sëriñ bi. Axlaa Touba fii de dañ fay ñëw suñu sëriñ joxe ndigal ah. muy ndigal loo xam ne sëñ Abdou Karim Mbàkke mu sëñ Fall moo ko joxe ah. muy ab ruuj ah. mu waral lépp luñ jàppoon rek ñu ba ko ngir tàbb si liggéey bi ñëw kañ nga fi ñëw ñun de ñu ngi fi taw départoon Dakar mm-hmm. samedi France yi woon si tool yi bi ñu xëyee dimanche ñu tàmbali woon liggéey bi nekkoon ci liggéey bi ndax ndigal bi noonu la ko sëriñ bi santaane woon muy na bàyyi faa lépp fanaan bu dimanche ñu tàmbali liggéey bi booba léegi na ñu ngi si kaw liggéey bi nekk si rek waaw nit ki moom li muy xemeem si lu ko digal ko di ko topp te du ko yomal ak leen loolu lu ko sëriñ bi wan la ndax fii moom amaana ñun ñëpp ay julli lañ ay nit lañ te sëñ Tuubaa rek lañ gëm waaye képp ko dox sa diggante sëñ Tuubaa rek mhm. day fekk kooka mu wan la melo woo xamante ni mhm. doy na la sëkk mhm. fa nga yaakaar yegg si yàlla mu mën la faa yeggale foo jógee Cees kaay Cees waaw daara yi Cees nga nekk waaw waaw yéen ñëw fii fi ñëw depuis samedi ah. waaw ngir lan ah ndigal li rek ah. ndigal li nga xam ne suñu yaakaar tey ëllëg muy Cheikh Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fall. moom moo moo moo ñu fi indi. waaw parce que ne koo jëfee rek ba mu mat. ndax ñun amuñu ko dul moom. te saa su nekk rek. dañoo dimbali tey ak lépp lu ñu mën a mën a ci yoonu murit. jëmi sëriñ bi kon moom saa su nekk dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànn ak wér. buñ ko kees nit wala yéen a ñëw. waaw ñun daare kees maam jëruñ Lam Fall. daare kees bi jëruñ maam Lam Fall ci lañ nekk. Mhm. waaw ndax daara ji. Mhm. maam dox ni ni bi doxee. mooy ay Baay Faal laxasaay yu ànd ak ay jëwriñu daayira mooy daara ju boot ab ay daayira. BMD Kébémer. ah Kébémer. Hmm. ah kañ ngeen ñëw ci liggéey bi. ñun ñëw nañ fi euh, samedi ci guddi. kon bi digal li ak ci yéen rek. waaw boobu lañ ca nekk rek. xam ne loolu doo nga fi sës. dëgg la te moom digal rek lay saa bu xëyee moom itam di déglu ba xam digal fu muy jógee ci sëriñ bi. Uh-huh. rox biñ ciy jotee rek dana dal di def jéego yi ci war rek. dëgg la moom ko kilifa gi dana woon nanu teel a fanaan si. Uh-huh. defe nañ ko comme noon rek. Uh-huh. di ñaan yàlla nañ ci dajanteeg ngërëmal sëriñ bi. amiin barkeb sëñ Fallu. na ngeen bëgg ci moom rek. ni sëriñ bi mel ni moom it yombul. ku sëñ Fallu di sa baay. nga wàcce sa bopp. bu la fekk yaa ngi ci donga yi saa bu ne di leen soññ. amaana bëgg a xetale jàmm ñi moo tax. waaw ñu ngi fi jiwaar yi. ñu ngi góorgóorlu bu baax. waaw waaw waaw mi ngi sori fi mu toll nii bu baax moom. mu ngi sori bu baax ñu ngi ci am yaakaar xam naa ne fii suba daal bu ñu góorgóorloo. ragal naa mën naa ñu ñu matal ko incha allah. diirub ñuy amal liggéey bi ci tool yi Serigne Abdou Karim Mbacke da ko ànd ak taalibe yi ne bis bi yàlla sàkk dina ñëw ànd ak ñoom liggéey bi. Eh, jaajuwaar rek ndax sëriñ bi fii mu indi sëñ bi daa am mu am am ba noppi daal ñuy bëggal loolu muy ngërëmal sunu borom ndax dañuy faral di dégg si nettali daara jam nekkoon muy daaru salaam nam fa daan dundee ci nekkin te nee loolu lépp maanaam sàkku ngërëmal sunu borom moo waraloon boobu doxin ci moom ndax ne boobu jamono sëñ Fallou mu ngi fi doon xalifa général lépp nekk si kër sëñ Fallou moom mën ne ci àll bi di dundee cere bu amul ñeex wala cere ji wow ak mbiskit te nee na boobu ngërëm sàkku ngërëmal yàlla moo ko jaraloon loolu kon suñ indee fii li ñu wax kàddu yooyu dana war a xam ne ñun sëñ bi danoo bëggal ngërëmal yàlla mu waral mu indi nu fii. ginnaaw juróomi fan yoo xam ne liggéey nañ ko ci la lépp mat ci àllarba ji dëppoo nag le 10 mai 2023 ñu dajale lépp jëfee ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane bi ñu xëyee ci alxamis ji dëppoo nag le 11 mai 2023 ci la sëriñ bi xëy ñëw ci tool yi saytu mboolem liggéey bi nga xam ne taalibe def nañ ko. mu am ci mbégte mu kawe lool ci la daal yëkkati kàddu soññaat mboolem taalibe yi leeral li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi muy def. nga mosal leen loo xam ni. paas dem paas ci dikk bàyyi fa dara ak ñoo xam ne dañuy am njaboot te seen doole bariwul léeg-léeg ñu ñëw wax la ko nga yëkkati dara jox leen loo xam loo xam ne dañ ci mën a am dépasse juróomi fan wala fukk keneen it ñëw def noonu keneen ñëw indi ordonnance boo xam ne da caa bëgg a faju wala mu di faj ak njabootam nga def ca dara waaw léegi yéen ñii liggéey fii ba loola lépp man faa jóge li ma wax lii lépp man caa jóge yéen ñi ko liggéey lu ngeen yaakaar yéen seen bopp ngeen ko defal xam ngeen ne loolu faw sunu borom fay leen Sëriñ Tuba loolu rek la doon jàngale jàngal nit ñi liggéey liggéey bi ca lañ mën a defe loo xam ni dañ ci am ngërëmul yàlla fi mu ne lii ngeen def lii mooy li ma leen wax mbay dana ci génne moo xam ne buñ ko jaayee xaalis ciy génn xaalis bi ci génne mooy def lii ma leen wax lépp te seen loola te loola kat ci seeni i taxawaay la jóge am koo xam ni day amul lëf ci poosam ñëw yëkkati ko jox la ko nga boole ko ci lii ngay defal ñooñi soxla waaye ñooñu li ñuy def lu mu doon du liggéeyal yàlla sëriñ tubaa loolu rekk la doon jàngale jàngal nit ñi liggéey ak joxe addiye rek addiye ji lii ma la wax rek ci lay yëngu ak loo xam ni yow miñ ko jox danga nga ci mën a barkeelu ak sa njaboot ak koo xam ne dafa ñëw bokk ci ndax koo gis lii ma wax di daje ci moom dana joxe loo xam ne ku ko togg xaaj ba waa kër ga duñ ko lekk ñeneen ñeneen ñuy jóge feneen jaar fa wala ñu yend si fa ñoom ñoo koy xéwloo loolu lépp addiya ak liggéey bu mel nii moo koy def man fi mu nekk nii da daa ngeen dégg ne Serigne Touba da daan teg kaamil yi ci kaw lalam eh, pompe ko ak laj koloñ moom Serigne bi mu tëdd ci suuf loolu lépp Serigne Touba daf ko doon jàngale rek ngir bëgg nit ñi di def lu baax man fi mu nekk nii bala maa xëy jàng li may njëkk a def mooy sama kaamil yi yi may jànge ak xasida yi may jànge moom lay njëkk a laj ko moom lay téye téere yi ngir bëgg lépp saf laj ko lañ bu ko defee nag ma ko ñemee fab parfum bi loolu li tax ma di ko def dama koo jàng rek ci sëñ Touba moo tax sëriñ Touba yooyu mu daan def yëpp da ko doon jàngale ngir bëgg nit ñi di def lu baax rek. koo xam ne kii nag. koo liy daje ci sëriñ si. liy dañ di ko tasaare. dañ di ko tasaare. daje gi ñuy daje ci moom. daje gi daf laa metti daf hmm. ba nga bëgg koo yàq. ba di ko tudd neneen. di la ngay wut. ba nga jàpp ne boo ko amee danga mën a yàq loolu yàlla sunu borom moom du la ci farle ba àdduna sosoo ba léegi ñi yàq lu baax suñu borom musul leen a farle ndax yéen a ngi dégg li may wax bu baax te di ko xam boole ci koo xam ni dangaa yéene yàq lu ba yaag ña la cay dimbali du ngeen ko man te yéen a jë da te yéen a jooji dana dal seen ndodd te àdduna yàggul pax a ngi nii jege lool yéen a jooj day ku ko yóbbaale sam pax ko gis te da ko rëccu àdduna jii de yàggul de jërul yéene wala ngay fexe loo xam ni day tege ci sam ndodd bu ëllëgee nga yóbbaale ko ci sa bàmmeel nii ngeen di def xoolal tool bii niñ ko bayee ba mu set rek luñ fi bay dana nangu ndax set na bu nangoo ñu jaay ko def ko xaalis di ko def nii ma la wax koo xam ne am na njaboot te amul doole ñëw ci sa wet wax ak yow ndax liñ bëgg lépp kat doo ko man waaye da nga def dara loo xam ni kooka dana ko yóbbu dundal ci ak njabootam juróomi fan wala fukk jàkka yi ñi koy tabax léeg-léeg mu tag te léeg-léeg mu tag ñëw wax la ko nga barkeeloo ca dara ak ñii ma wax ñuy tukki te ñoom kat lañ fay wuti mooy seeti ak bokki jullit yi ku faatu ñu war a dem ca sarax sa wala ku faatuwul sax seen mbokk ñu dem seeti ko nuyu ko saafoon moom lan ko jox ca la paas dem dikk te danga fa bàyyi dara seet leen loolu te loolu lépp ci seen liggéey bii rek moom la sababoo la nga leen di jox ci seen liggéey bi la sababoo ñuy joxe addiya li ñuy jële ci seen poos di ko joxe loolu lépp ci àddee yooyu la sababoo kon nag nangeen xam ni loolu mooy liggéey bi def loo xam ni jaami yàlla yi ak néegi yàlla yi dana dem ci ñoom loolu kay kuy wut ngërëm ci yàlla xam nga ne loolu kat mooy may ngërëmul yàlla kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xam ngeen ne seen coono yi yëpp yi ngeen def ak naaj week ak lépp ngir bëgg fii set ngir ngi mën fee bay xam ngeen ne loolu dara la de dara la de te nag bisam dana ñëw jërë ngeen nee mu ngi leen di ñaanal waaw nee mi ngi leen di ñaanal nag yàlla sàmm leen def leen ay mag defal leen ay xéewal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama barke borom Touba barke El Hadj Fallou Mbacké gaa yu baax yépp bi sëriñ bi ñaanee ba noppi taalibe yi àndoon nañu ak mbégte mu kawe lool mbégte moo xam ne kenn mënu ko woon misaal waaye sëriñ bi ci yërmande gi ak woyaf gi xamal mbooloo mi ne du dem mukk bàyyi leen ci tool yi daf leen xaar ñoom ñëpp àndandoo ñoom jiital leen ñu def benn convoi ba nañu agsee ci Touba Mbacké.